voilà asalaamaaleykum mbokk yi kon dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog koo xam ne kii duñ ko présenté kenn ci réew mi mu di Serigne Mboup bu Sarr waaye nag itam Serigne Mboup homme politique boo xam ne bii xam nañ la depuis bu yàgg a yàgg ci PDS xam la itam ci bi nga bokkee ci APR te teel bokk lool parce que bi wax nga fii bis ne da ngaa jékki-jékki jël say kàggute da ngaa tàggoo ba mais Serigne loolu sax bëgg na ñu dikkaat ci parce que loolu yitteel na Sénégalais yu bëree bëri dangaa ngaa jékki rek yow avertir gars yi ne fi ngeen jëm baaxul nga dem wala da ngaa jékki ci sa xam-xamu politique ne xaaral man ma dem ci sama waa mag Macky wala lu xew. non maa ngi lay nuyu di la gërëm. oui parce que loolu Sénégal yi war nañ ko euh, mais loolu moom euh, waxoon nañ ci c'est vrai que. Euh, li ma décidé ak li ma motivé. moo di d' abord euh, ki nga xam ni moo sopp APR président Macky Sall bon ñoo bokk gis-gis musa ànd ci politique ñu ñu bëri d' abord au niveau de la CIS. liggéey fa liggéey bu rëy. comme ni ma waxoon def naa mooy kuréelu cadre bi gën a mag bu ñu mus a créé ci ci ci Sénégal ci densité ña fa nekkoon mais aussi ci qualité liggéey bi bi ñu doon def xam naa ni aussi euh, leadership bi mu amoon moom euh, pour diriger. Euh, nit ñi te tey yàlla wane ni effectivement du woon hasard bokkoon na ci quoi parce que cadre yi fu ñu tase souvent day bari wujjee xuloo compétition amante ambition mais euh, defoon na daal ba nga xam ni vraiment euh, ñu ngi doon liggéey liggéey bu rafet au-delà de li ñu bokk politique ku nekk yor say ambition donc loolu la bi affaire yi amee aussi man relation humaine dama wax ni moo jiitu relation politique te relation humaine musul dakk parce que politique day jeex mais li ngeen bokk li ngeen seq loolu lu jeex mukk loolu moo tax euh, euh, man ma xalaat ne à moment donné tam jàppale ko moo gën et bi ma koy def aussi boo nekk ak say nawle ñu am yaakaar ci yow parce que man tamit dañ ma jiitaloon ma nekk président cadre yi amoon na cër bu mag euh, ci biir PDS ak ñu ma fa nekkaloon ñu respectement ñu ànd ànd bu rafet euh, demuma parce que dama am intérêt ici ou là dama dem parce que dama foogoon ni loolu moo gën ci réew mi et loolu laa waroon def man euh, ci relation humaine yi ma bokk ak moom te mu ëpp relation politique donc loolu moo tax euh, ma wax ak ñëpp président Wade ak ñu fa nekkoon mon ami Omar Sarr évidemment bureau fédération cadre yi assemblée générale ak cadre yi wax leen ni man lii laay def parce que aussi munoo nekk fenn jiite leen ba pare bu xeex amee doo mën a jël yenn position yi ndax li nga seq ak ki nga ki nekk en face donc loolu aussi taxoon na doo li ñuy wax euh, nga war a jub war a dëggu ci li nga nekk doo ko mën a nekk parce que doo mën a supporter mhm. euh, yenn action yi te mënoo jiite ba pare mbooloo dajaloon lii la ñuy def nga ne duñ ko def ndax dama am euh, gàllankoor wala ak yooyu quoi. Mhm. loolu moo tax ma ne nga bàyyi moo gën. dem def li nga xam ne. moo dal sa xel moo dal sa xel te nga gëm ko te muy dëgg ci yow te mu naturel. ànd ak ni ngay gisee àddina. d'accord mais Serigne pour le moment ñëpp xam nañ ne yaay yaa ngi Sarr yow kilifa nga foofu la mais ku tudd Sarr da nga tudd pétrole fan la fan la fan la Sarr toll parce que Sarr bari woon nay coow de. seen seen ah, seen Sarr moom société bu. société de raffinage la waaw société de raffinage bu bu bëri coow la parce que pétrole moo am. coow ci moo ànd ak coow d'abord première deuxième chose. SAR dafa nekk euh, société boo xam ni dafa am solo ci réew mi parce que bu doxul euh, courant du am euh, bu doxul essence du am bu doxul gaz du am bu doxul ndox sax du am parce que ndox courant mooy doxal machine yi bu doxal économie du am et donc ba pare mu nekk secteur boo xam ni xam nga Sénégal amagul woon pétrole dañuy jëggaani yëpp ci bitim réew te prix yi moom la yàlla xam doy na mm-hmm. bu ngelaw li jëmee nii prix bi yéeg comme fi ñu toll nii prix bi sori na mais aussi dollar bi parce que dollar lañ koy jaayee. Mhm. dollar bi presque jege na six cent francs léegi. Mhm. soo ko xoolee boole dollar bu yëg ak prix bu yëg. Mhm. te ak doole Sénégal attanul euh, di ko jaay ko li mu war a jar euh, économie Sénégal attanu ko parce que loolu day indi inflation. indi yokkute njëg yi soo gisee depuis 2012 ceeb bi suukar si diwlin ji ak yeneen ak yeneen yam place parce que gouvernement bi dafa am décision yu mag yu mu jël ne non damay am benn système de péréquation maanaam noonu lañ ko mun tuddee boo xam ni njëgg yëpp duma ko répercuter ci consommateur bi parce que tey litre super bu yokkoo rek. Mhm. Euh, transport yokku euh, lépp yokku et cetera. donc loolu évidemment day indi ay jafe-jafe parce que sooy jëndee ñaar fukk di jaayee fukk ak juróom-benn. Euh, day jafe euh, nga nekk à jour ci say engagement parce que ñeenti nañ la ko jox waaye euh, da ngay buñ ko jëlee ba pare xam nga état aussi du génne xaalis noonu il faut nga justifier ko indi ay certificat de consommation yoo xam ne ñu vérifier ni lii mm-hmm. consommé nañ ko dugg na yooyu yëpp bala nga koy dajale nag mun na def ay weer moo tax léeg-léeg bor yi xaw a tar ba ngay nekk ci jafe-jafe te boole ko obligation waxtu jigéen ji demee ci boutique ba war na am bomb nu gazam ku dawal sa oto ba taxaw station war nga am essence et puis Senelec warul taxaw benn yoon ci joxe courant mm-hmm. loolu nag yàlla ngi ci suturaal. d'accord mais Serigne keroog dafa am euh, bi nga fi ñëwee euh, loolu danaa di ci wàllu politique bi am ñu yëngu ci wàllu gaz bi ñu ne ma waroon nga laaj euh, Serigne boobu ci distributeur lu mel ne ay lobb gaz Mame Diarra Bousso ak yu demee noonu est foofu. ñoom li ngeen leen sëf tamit attan attan nañu ko parce que il semblerait que ñoom seen gaz bi yéen état bi daf leen di daf leen di war a jox ay subvention wala am lu mu leen di wax jaay leen lii war a am lu mu leen jox ba noppi fàtte leen. waaw loolu fixé benn prix. te te lu ca topp. loolu mooy administration prix yi ma lay wax. xam nga man fi na tey jii. Mhm. Euh, support waroon na topp huit cent francs. Mhm. six cent quatre-vingt-quinze lay jar. nga président Macky Sall daf def lu rëy wàññi ñaari yoon essence plus de cent francs loolu mosul am ci histoire Sénégal euh, parce que huit cent et quelques francs la ko fekkoon jamono yooyu gasoil bi mënoon na tem sept cent cent vingt tey mi ngi jar euh, cinq cent quatre vingt donc butane bi aussi lool la butéelu butane douze kilos bi def naa sept mille lañ ko fekkoon léegi trois mille et quelques lay jar xam nga loolu diggante boobu euh, am na ci lu ci tegu loo xam ni toujours dañ koy Euh, war a fay mais mooy li ma la wax mel ni loo bu maa ngi nuyu Aliou Lo d'ailleurs di ko gërëm président moom dafa bokk ci jàmbaari jàmbaar yi parce que dafa euh, gëm Sénégal lu mu def tey jii mun naa wax ni moom moo am première capacité de stockage butane ci Afrique de l'Ouest ah bon ah bi gën a rëy lu ëpp presque quinze milliards d'investissement mu def ko euh, parce que gëm na réewam parce que bëgg na réewam parce que aussi euh, am na euh, volonté def loolu moom ak Touba Gaz Touba Oil donc Mbacké Seye ak ñeneen ak ñeneen mu di. mais ñooñu ñooñu kon jaadu na état bi di leen bàyyi xel. non bàyyi na leen xel bu baax sax parce que soo xoolee SAR moo doon importer gazu Sénégal yëpp. Euh, ba pare leen ko jaay ñoom léegi may nañ leen ñu importer cinquante pour cent gaz bi. ah bon waaw waaw may nañ leen ko. ñu génnee ko. ñu waaw ñoom ñooy jëndal seen bopp. waaw d'accord waaw dem jëli ko waaw. jëli ko démb rek lañ mujj def réunion pour séddal leen ko. loolu ah, xam nañ seen njariñ deuxièmement Euh, dëgg la comme prix yi dañ ko administré maanaam bloqué ko. waay am gab bu ñu leen jox mais gab boobu aussi dañuy importer jaay ba pare indi certificat consommation mu dem commission nationale de l' énergie ñu vérifier que lii kat duggal na ci réew mi autorisé woon nañ ko dugg na ci réew mi jaay nañ ko ñu calculer loolu ñu valider ni lii état war na ko fay. parce que gaz bi dafa dafa dafa dafa maanaam yokkootul. waaw léegi ñàkk yokk googu est ce que ñoom Aliou Lo ñooñu. waaw mooy li ma la wax. waaw moomu daal man mii ci. Ah essence moomu daal ci moo ma dal ci yeneen waaye état mooy fay loolu te dañ koy fay aussi ah. état dañ koy jox état moo ni man maa ko gàddu parce que bugguma inflation am yokkute ceeb diwlin suukar transport bugguma euh, réew mu yëngatu te loolu bu ko état defee pouvoir d'achat nit ñi moom la bàyyi parce que yow boo waroon a jënd tey nga nekk chauffeur war a jënd litre super huit cent francs soo ko jëndee sept cent francs ah est-ce am na lu mu dugal sa gafaka nga am pouvoir d'achat boo wàccee bu la neexee nga jënd seritier yóbbaale bu la neexee nga kii donc loolu vision la c'est une ambition politique qui fait dañuy yokk pouvoir d'achat nit ñi ñu consommer et loolu tubaab dina wax la relance de la croissance par la consommation loolu moo indi bourse sociale yi yow dañ lay subventionné parce que yow nga oto man dañ may subventionné keneen dañ koy subventionné ki amul dara deful dara ñu jox ko bourse sociale suñ ko joxee cent mille francs moo tax élection yi nit ñi gis nañu bourse social yi njëriñ bu mu am waxuma sentiment boole ci askanu réew mi nga xam ne yow Maodo Faye euh, maanaam presque na ma yàlla baal nga jégal ma jox ñu mais mala mu doon dem rek nga parce que mën nga dund ba dee am 70 ans am ay jabari doom doo mus a jàkkaarloog état foo gisee état rek ci village yi boobu gendarmerie wër di am ku muy wër si léegi nga ñëw ñu woo la jox la Euh, di la fay lu mat euh, retraite parce que boo xoolee suñu papa yi sax seen retraite vingt cinq mille francs par trimestre daaw ko mat kon daanaka loolu bourse social yi indi na loolu ngay am loolu waaye nga xam ne ku nekk ci àll bi sonn wala ci ndakaaru ndóol buñ la joxee cent mille francs lépp da nga koy jaayaat consommation la parce que suukar diwlin mais boo ko joxee trois cent mille famille c'est trois cent milliards yu duggaat ci réew mi donc loolu il faut nit ñi xam ni xalaatu président Macky Sall bu mag boo xam ni da ngay def inclusion sociale ku ne am sentiment ni bokk naa ci réewam man yor naa sama tuut mën naa dem ci boutique ba léeg-léeg mu dem marché léeg-léeg mu jëndi outre li muy obligé sa doom mu jàng parce que sa doom ñëpp xam d'accord nañ ni xam-xam bu mënti doon bokk na ci xeex ndóol bu gën a efficace parce que boo amee xam-xam maanaam professeur arabe nga maanaam tailleur nga maanaam artisan nga maanaam jàng école nga am métier di nga nekk capacité xeex ndóol beneen xeex boo xam ne d'accord mbokk yi bu fàttali leen ñu ngi ci euh, jano bi ak Serigne Mboup di directeur général bu SAR donc kon ku mel ne Aliou loo daal ñu mel noonu bu ne bu bu lobbu gaz bu Diarra ñoo ñu bu ñu bari woon ci réew mi xëy na dana dana noppal dana équilibrer économie bi parce que moom li wax nga ko léegi ñëpp jàpp na ne jàmbaar pire la jàmbaar dëgg yàlla loolu ñëpp Sénégal yëpp nangul nañ ko fukki Aliou Lo buñ ko amoon buñ ko amoon ah. ci pétrole am ko ci agriculture am ko ci euh, industrie mhm. am ko ci yeneen secteur transformation des produits mhm. lii mango lii banana lii papaye te jus yi nga gis mu ñu lakkal ñu di jógee fu ne mhm. suñ ko amoon Sénégal jëm kanam moo tax euh, ñu jàppale leen bàyyi leen xel et président de la République def sax beneen affaire ci découverte pétrole yi ah parce que oui oui oui mooy loi yu bees yi am na ci boo xam ni code pétrolier la loolu beneen affaire la pour gën a dëgëral euh, condition yi ni ñuy joxe bloc yi ak nit ñi li ñuy bu ñëwee yan condition la ñuy ak li ci Sénégal war a am ak Petrosen mais bi ci ëpp solo encore moo di bi mu wax euh, li ñuy wax contenu local maanaam wàllu pétrole yi léegi dafa am loi bu bees bu ne muy SAR muy Petrosen muy BP ñi fi nekk ñëpp wàllu pétrole moom dafa am nooy liggéey un employé sénégalais la war a nekk. bu dul sénégalais nga nga jël sénégalais yi formé deux su dee da ngay def sous-traitance société yi ngay sous-traiter société de droit sénégalais la war a nekk maanaam ay société yoo xam ni Sénégal lañ leen créé. maanaam priorité sénégalaise. priorité sénégalaise loolu mooy tax ay junni junni nit di liggéey ci secteur parce que tey jii bu dee da ngay def autoroute wala ngay def raffinerie bu bees euh, jox ko tubaab tubaab bi ñëw indi ay sous-traitant yu ne wala nga jox ko indien mbaa chinois suñu mbokk yu baax lañu waaye ñu ñëw liggéey ko ñibbi. dara des ci réew mi dañu bëgg nag loolu bu ñu ko defee même bu dee lu ñu amul la xamuñu ko mënuñu ko euh, bu demee ba ba ba agsi su boobaa nga jël doomu Sénégal boo xam ni mooy liggéey euh, bu dee soudure su dee beneen métier bu mënti doon doomu Sénégal kay def. loolu mooy tax. d'accord bi am ci réew mi et puis comme comme ni des fi surtout. d'accord Serigne élection yi ñu génn noo def ak pire. da ngaa dóor gaay wala dañu laa dóor. non loolu dama dóor man moom man benn bokk yaakaar yem. ah, ah benn bokk yaakaar ñoo yem. waaw ah, yàlla defal na ma sutura man mosuma perte élection. déedéet waay sëriñ. ah moom saa yi fa demee élection man. yow da waaw loolu la ma yàlla jagale. Ah, te loolu nag waa pire ñoo lay gërëm. nga may ma sa micro ma saluer leen. gërëm leen sant leen kenn ku nekk ci turam. ak santam yónni naa ay délégation yu dem ci dëkk dëkkaan yi ko wër ak biir biir suñu kilifa yëpp ñenn ñi woo nañu leen téléphone man sam bopp pour wax ak ñoom sant leen ma profité sa micro def ko yàlla defal nañu ñu gagné suñu commune ñu gagné suñu département ñu gagné suñu région région de Thiès ak 52 pour cent muy région bu metti woon defe naa moo gënoon metti ci élection yi région de Thiès parce que candidat bu mag euh, ki jël deuxième foofu la dëkk. gis nga sax département Thiès bi gagné nañ ko ci législative mais dañ mujj ñàkk ko waaye yàlla defal nañu ndam ci Tivaouane dix-huit communes ñu gagné fukki ak juróom benn euh, ba pare euh, gagné commune euh, département Mbour loolu moo ñu may ñun bu doon Sénégal élection yi région Thiès rek la kon président Macky Sall day gagné day falu premier tour ak 52 pour cent ca sunu région rek. képp seen diwaan bi am ngeen ci région de Thiès pire moom da ngeen a baabale jàll jàll. waaw oh, dañ pire dañu gagné d' abord. parce que pur xam nga ni pur moom am na ah, doole ay ci ah, doole ji moom pur moom Tivaouane mooy seen base naturelle première chose deuxième chose département Tivaouane bokk na ci département yu raar yoo xam ni fédération PDS suma xarit yooyu dañu lëkkaloo ak euh, coalition UDI 2019 dekk benn bloc nga xam ne dañu ànd campagne campagne bu métti ce qui fait que élection yi amoon na passion mais encore une fois suñu bilan ci ndox courant wàllu éducation ay réalisation ñun suñu bopp yu président ensuite yi nga xam ne moo nekk ci réew mi nekk fu ne ak aussi kóolute gu waa dëkk bi am ci ñun ak taxawaay bu ñu leen di taxaw ci wàllu social ñu ngi ci jumaa yëpp ñu ngi ci jàkka yëpp ñu ngi ci hôpitaux yi ñu ngi ci dëj yi ñi ngi ci xew yi ñu ngi ci gendarmerie police ak justice sax parce que ku am problème da lay woo nga jàpp ci muy profité di gërëm Abdou Aziz Ba sama adjoint ak ña nekk ak moom ca mairie ba nga xam ne ñoom ñoo fa gën a nekk Euh, que man parce que man boo xam nga maa ngi liggéey fii damay dem di dikk euh, ñoo ñëpp leen di gërëm mais vraiment di gërëm waa Pire euh, metti woon na mais élection moom bala moo neex sax balaa nga ñaay metti nga gaje mais mais Serigne Serigne Mboup ñi la ñi la ñi la xamul bu baax a baax man xam naa ne yaa ngi gàddu turu benn kilifa gu mag ci nitu yàlla yi mu ci Ahmad Bamba Mbacké moom lañ la tuddee loolu rek déjà yow kon li ma lay bëgg a laaj war nga ci am lecture politique mm-hmm. man jàpp naa ne si taalibe Sëñ Touba nga ndax loolu la ñuy xamee. bu leer nañ. waaw Touba ci boppam ay taalibe na fa muy dëkkub sëriñ tubaa waaye yow muy ànd ak Macky sàll ak Macky Sall mun leen a fexe ba am fandam wala loolu amul njàngat. njàngat bi c'est am na jàngat bu rëy. waaye ah. sëñ Maodo bëgguma laa bett. ayca man dama gisaat baatinu Serigne Touba foofu. ayca ah bon Serigne Saliou Mbacké. moom moo njëkk ñaanal président Macky Sall. loola ñi may dégg xam nañ ko sëñ Mbacké soxna loo. woo ko yónni ko di ko demal ci sëñ Saliou mu dem woo sëñ bi ba kooku ma la yónni dama bëgg nga ñaanal ko boobu directeur général Petrosen sëñ bi ñaanal ko ñaan yu dul ñaanal ñu bëri mu fasanteeg moom kóllëre liggéey ministre de mines et de l'énergie boobu aussi wax naa la fi keroog ci pétrole bi li sëñ Saliou ñaanaloon président Macky Sall. si hmm. mu président Wade ak ñeneen. ne ko mu ne ko kii de dama bëgg Mbàkke nga ñaanal ko ndax moom laa dénk pétrole mu ne ko yàlla na feeñ ci say yoxo sëñ Saliou waxul Macky Sall loolu ministre de l'énergie sama kanam ak kanamu délégation ba fa ne woon yëpp boo laajee Saliou Diakhaté ak Matar Diakhaté ak ñeneen ah, ak ñi bokkoon ci délégation ministérielle président Wade présidentielle bi danañ ko danañ ko kii fukki at ak eh, ñaar après Macky nekk président pétrole feeñ ci loxoom man ñëw naa fi ne naa la booba laa xam ne bii sëñ Saliou du ko ñaanal ñu yàlla def mu denc ko mu feeñ fukki at ak ñaar gannaaw te mille 2004 lañ signé contrat bi mu feeñ 2014 euh, Macky Sall war a faluwaat pour commencer production pétrole bi sëñ Saliou du ko seetaan du ko àggale man gëmoon naa lool te baatin bi mooy président yu ñu am yëpp Sénégal ñëpp ay mag lañu président Wade président Senghor président ku ci nekk monument waaye Macky Sall rek ci nekk ingénieur yàlla defati mu nekk ci pétrole xoola àddina bi yëpp nag président yi ban er, président réew ngay dem gis fa ingénieur ci pétrole bu nekk président bariwul kon baatin dafa am ci ci mbir mi deuxièmement président euh, Macky Sall Serigne Saliou Mbacké le 25 décembre 2007 25 décembre guddi Noël am na nii Noël cinq décembre mu woolu ko ci guddi gi di 24 mu ñëw wuy si ko le 27 mu ñëw mu ñaanal ko loolu ñu ma lay wax ah bon ñu ko fekk waaw de ma tuuti rek le vingt cinq décembre mu ñëw ci moom mu ñaanal ko sëñ Saliou fekk papam le vingt huit décembre mooy nit homme politique bu mu mujj gis ci homme public bu mu mujj gis ci àddina wax ak yow ñaanal la kon kooku li sëñ Saliou tegaat ci yow Maodo taalibe nga xam nga lu bari sëñ Saliou combat bokk na ci politique génn Touba waaw waaw politique yoonu Touba. intéressé combat am la ci woon. intéressé bi nag tey wane na ni. ñaanu sëñ Mountakha gi mu ko booleeg Serigne Touba ba mu ko inauguré autoroute ba man de sama njàng-njàngum taalibi ba pare sëñ bi ñaanal ko ni ko boole nag sëñ Touba murit ci senegal yëpp nag parce que nag Touba moom mooy kii ba waaye murit yëpp nag nekkuñu dëkkuñu Touba nag. murit yëpp mais mooy capital man maa ngi nii yow yaa ngi nii dañuy waxtaan rek. waaw ñaanu sëñ mun Mountakha googa man moom laa jàpp. ne moo tax Macky Sall gagné fu ne waaye sëñ Saliou baatin na mu ànd nag moom ah, defe naa ni génn ci parce que tey jii Macky Sall falu na ci ñaanu Serigne Touba man loolu laa gëm ak liggéeyam nag baatinu sëñ Saliou Mbacke ba waaye liggéeyam bilaam xarañam yaram te tegginam élection yu mel ni mosul am ñëpp xam na ko ba pare euh, mu ñàkk tuubaa ñàkk gu yëm Ah, loolu ah, lu ci lu ci yéeme li ci non ñàkk gu gu metti waaw ah, metti metti na waaw bu mu perte Touba ba pare gañe réew mi gañe bu mucc ayib loolu loolu aussi lu mat a jàngale yéen a ma ëpp xam-xam jàng leen ko jàng leen ko jàng leen loolu sëñ kon sëñ Saliou day wane na ni ah ci sama gis-gis taalibe bu non loolu d'accord nañ ci waaw voilà wane na ni wane na ni am ngërëmum sëriñ Touba mhm. déggal ko te nangul ko foo nekk baatin ba fekk la fa te te bëgguma politique Touba nit mën naa falu ci réew mi am baatinu Touba ñaan gi te waa Touba duñ la voté loolu aussi leçon la pour ñu def politique ñëpp te Touba même bu ñuy du c'est vrai bu la waa Touba voté loolu non mais man kay question bi ma laaj mooy dama la Macky moom dama fàttalikul fu mu mës a gagné Touba man loolu sama problème waaye te fàttalikoo fu mu mës a perte élection ah mais Touba dafa ah am njëriñ ci réew mi waaw d'accord mais Touba ba ah waaw Batin sëñ Maodo Batin baa ngi fii Sud mu fekk naa fii fii <laughs> ngeen di def euh, nu ngeen ko tuddee woon saxati. bi ma fi mujjee ñëw ngeen di organiser euh, kii Serigne Touba fii bu mag. ah waaw waaw kii bi la woon euh, ñu ngi fi ci màggal gi lañ jubli woon rek. Ah, ñu defal ah, biir waaw Batin ba ma nga New York. Bamba Day Batin ba 18 safar lañ fi doon def. waaw 18 safar. waaw te nga xoolaat Macky Sall dëkk yi ñu sañc yépp waa Kër Sëñ Touba sañc ci Sénégal dëkk bu ne moo fa gagné largement. waaw seetal rek nag. d'accord xoolal Daaru Muxti xoolal ma. mais mais déet eh, Mbàkke kat fi la sant gën a àddina. te dama wax rek. <laughs> Ah, mais Serigne xoolal problème bi mooy Touba yéen problème mu Touba ngeen am. waaw problème Touba. Touba sëñ Touba du Touba. suñ Touba dimension àddina bi. waaw d'accord nañ ci loolu sëñ Touba ki ëpp na Touba waaye nag itam. kon nag moom bu la fekkee rek. d'accord jàppal xamal ni moom. Mhm. amul làqu amul aji amul sori. amul jege. foo ma a ne. foo mën a ne te Macky Sall dey gërëm na famille religieuse yëpp nag mu di waa Médina Gounass mu di waa Tivaouane nga xam ne nii dafa changé Tivaouane radicalement Yoff Layeen gi boo jëlee VDN 3 bi rek ba romb fa. voilà VDN bi yàgg na déedéet déedéet VDN moo jiitu VDN 2 kay. moo moo jiitu Macky Sall yow. projet bi yàggoon na di déedéet VDN bi kay si sas lay jaar ci wetu rawoon bi section 2 bi continue waaw laa la wax ba dem golf romb Cambérène ah d'accord ci côté boobu laa wax ak trois bi boo fa demee mais boo demee tey ba Niassène ca Kaolack ak faneen ak faneen donc président Macky Sall famille Sénégal religieuse yëpp ñoo taxaw te nag ñaanal ko rek ci li mu leen liggéeyal waaw def parce que joxaat na crédibilité suñu sëriñ te Sénégal la ku laal sëriñam laal nga buumam moo tax fukki Sénégal yoo jël juróom-benn yi nii gongo yow lañu àndal. mooy li ma la waxoon fii. d' accord d' accord mais Serigne euh, Macky Sall bi mu gagné dafa wax ne euh, bu résultat yi génne dafa appel au jaloo gars yi ñëw dajaloo bokk benn wax waxtaan opposition bi ñoom dañu sax tontuwul faf ñi ñi ci jota tontoo ko si néew bu ñu déggee seen wagalan wax ku mel ne Sonko ak Abdoul Mbaye yu demee daanaka mooy rek pour dem ci waxi wolof. waaw ñoom dañ leen a woowul sax ba ñuy. ma Macky Sall woowul kenn di moom ñëpp rek. a woo a wax ne diw ak diw. déedéet ah, Macky ñoom ci lañ bokk yéen journalistes yi ci ngeen bokk. politiciens yi ci lañ bokk. taalibe yi nekk fii ndaw sëriñu daara yi organisé wu nga xam ni yore nañ lu mat un million xale di leen jàngal ci la ñu bokk béykat ya leen nekk pire di bay ñaam bi sama mbokk yi ci la ñu bokk élèves yi étudiants yi këru diine yi société civile ñooñu la président Macky Sall woo parti politique yi nag ci lañ bokk force vive du parti politique. les acteurs ah, mooy force vive yi ci lañ bokk. Ah. li mu bëgg a waxtaane voilà na naa fukki sénégalais yoo jël juróom-benn nii nee nañ ko yow la ñu àndal ñaanal nañ la joxaat nañ la suñu lenge wóolu nañ la continuer kontaan nañ ci li nga def lañ bëgg nga yokk parce que lu engagement boobu la jël te fi ngeen di jëmee nu dal na suñu xel léegi nag mu ni ah am na yoo xam ne dama bëgg ñu gën ko waxtaanee parce que dama bëgg mu dëgg fi dëgg goo xam ne ñëpp ko bokk ba bu ëllëgee du nit day faluwaat rek mën ci dellu si parce que foog naa ne njariñu réew mi la ñu ni ko lan mu ni Casamance paix bi par exemple na ñëw ñu waxtaanee ko. waaw waaw battu waaw mais la mu fa def moom ñëpp gis na ko dëkk Casamance kontaan nga ci président Macky Sall bateau bi ñaari bateau yi dem ak yeneen yi ñëw pont bi moom kenn waxatu ko. waay waay dañuy waxtaan. waaw dañuy waxtaan mais pont bi pont bi dañuy waxtaan. oui bi li mu ci def. Euh, ak réalisation économique yi mesures fortes yi mu jël défiscaliser tourisme Casamance ak leneen ak leneen su mhm. xalaat na Casamance te gis nañ ni accalmie dëgg dëgg ko wax dëgg rek xam ni accalmie am na jeexagul nag maanaam mu ni nañ ci waxtaan parce que bu beneen président ñëw daal di amaat euh, euh, xalaat ni par exemple nii laay def ñu recommencer à zéro par exemple deuxièmement mu ni parrainage bi def nañ ko parenage bi képp koo xam ni réew mi doo nga la tax a jóg te muy dëgg nag vraiment gis nga ni am na njëriñ bu ñu ko def defoon musiba am parce que élection yu amul bureau de vote nga dégg contestation yu dëgër amul centre de vote bureau de vote yi daanaka yi ci ëpp à part quelques rëq-rëq ubbi nañu euh, matériel la nga fa ubbi nañu huit heures tëj huit heures et cetera et cetera taux de participation kenn mësul xalaat ni danañ dem ba Sénégal quatre millions de quelques. yéen yéen yéen yéen gars yi a gonflé affaire wuñ ko parce que projet verbaux ñëpp ko yor. alors loolu bu ñu ko defee. inscrit xam nga lu tax nombre d' inscrits six millions et quelques. Ah, moo tax yéen a conféré foofu. da ngeen xam que sëñ mbokk sama mbokk yi ci Linguère googu yëpp bind leen kenn xamul leen jëlee. Ah, waaw parce que dañu yombal am carte ah mais ah man ko jox nii pire ay audience foraine laa def yu bari waa PNN mooy dégg. ah bon ah oui nit ñi amoon di judd ñëw man dama def mairie ba état civil informatisé moderne ku nekk mën am kayitu judd ku nekk mën am carte d'identité mais loolu mooy yoon sénégalais nit buy dem dafa war am carte d'identité donc ñu bari voté. Euh, ba ñuy def refonte bi sëñ Maodo boo ko fàttalikoo opposition booba d'accord nañ ci waxtaan ñu ne nañ def refonte moo tax ñu naan refonte partielle la am total ñu ne bu ñu amee ñeenti millions yu bindu parce que ñëpp foogoon nañ duñ ko am suñ ko amee ñu considéré que pardon fichier bu bees la loolu lañ def ñu am pratiquement juróom benn million ak juróom-ñaar téeméer soriwu ko donc quatre million et quelques votés ah, mais loolu xam nga lu ko war juróomi candidat su fekkee ni ku dugg da ngay tànn ñaar fukki bulletin ak juróom-ñaar kon sëñ Maodo élection yi du gaawe ni yow wóor na fa nga watee defoo fa dix minutes ca ba lan laa wate rek jàll kaneen noonu kaneen loolu moo tax nit mënu la contester ci ak ay firnde yu leer ak crédibilité affaire moo tax aussi ku fi woote ci wàllu élection kaas kenn du la wuyu parce que nit ñi kenn ku ne xam na li nga voté xam nga mënoo. mais yow dialogue bi waaw dialogue bi loolu laay wax mais bi mais bu ñu ñëwul déedéet d' d' abord. dina am ñu bëri ñu ñëw man maa la ah wax ah ñu bokk ci opposition bi ñëpp nag duñ ñëw xëy na te loolu aussi démocratie nag du consensus ñëpp ànd sol bu weex mais mais mais est-ce que est-ce que nga nangu logique gu nga gagné élection en tant que chef d'état Macky Sall opposition bi félicité wuñu la reconnaître wuñu résultat yi rejeté ko nga wala ci dialogue est am na sens mais moom dama la ni d'abord am na sens kay ah, ah oh, moom gañe na gagné boo xam ne kenn mënu ko wetti ñëpp nangu na ko waa réew mi waa bitim réew observateur yéen journalistes yi ñëpp nangu ngeen ko parce que fi ngeen toog di joxe ay bulletins résultats xam ne seen i nit leen ko jox te seen i nit moom faruñu kenn li ñu yor lañ leen di wax kon ñëpp xam na ko bu moom bu ñu nit ñi deful li ñu war a def moom mu def ko war li mu war a def mooy juróom-benn sénégalais yu nekk ànd nañu man waaye am na ñeent yu àndul ak man naa leen woo ñoom ñëpp ndax maa leen jaboote maay kilifa ñëpp ah ku ma wuy si baax na ku ma wuy siwul baax na mën naa dem ndax am naa majorité assemblée mën naa dem ndax xam naa fi ma jëm mën naa dem ndax def naa bilan mun naa dem ndax am naa programme bu leer sénégalais gis ko ni ma demal waaye nag euh, duñ la jox lépp nga jël lépp naa woo ñëpp wax ak ñoom wax nga ci parrainage parrainage bi war nañ ci mën a wax waxaat parce que dañ ko xalaat def ko mu gis ne am na mais mais pour opposition bi c'était juste pour les freiner ah pour ragal gars yi fii non xam nga xam nga sëñ Maodo ah, sëñ Maodo. loolu la gars yi wax waaw loolu la ñu wax mais xam nga aussi du li ñu wax rek mu am yow xam nga ni yow opposition bi nga gis ah du gis nga coalition bu mag di nga gis coalition ñu teg photo Maodo Faye Serigne Mboup bàyyi Omar Gueye et cetera jël kenn ku ci ne nga nga xool ban dëkk ci Sénégal. ci ban zone la am centre de vote mbaa bureau de vote bu mën a gaje am nga loolu yomb na. Idriss Seck Idriss Seck. ah Idriss Seck dafa jàll ci parrainage. ah ñi si ñi si gannaaw koy wax. Ah, euh, voilà ñi ñu génn. ñi ah, ñu dàq ci parrainage ñu génn ah, seetal ma carte Sénégal nga teg ko ku ci la nga ni dëkk bii quartier bi bureau bi foog naa ne mën na ko gagné. c'est ça la vérité. Malick Malick Gakou Ousmane Sonko dafa liggéey ah. géej de moom bureau yi moom def naan sama gars yi fa ñu ma felax rek jàll felax jàll même mon ami et frère Guirassy maa ngi koy nuyu. mais Guirassy non Kédougou bi mu gagné woon dañ ko dóor ba moom kay. non non bari ah. gars ko bàcc bàcc. ah non attention Kédougou moom sama la mun naa wax le terme boobu <laughs> bàcc yu métti lañ ko bàcc foofu bien que gagné woon na. Euh, ci législative yi nit ñi dañ dellu si ànd ak président Macky Sall parce <laughs> que nag PUDC. mais Kédougou am na fa résultat yu baax yu probant yu. waaw wante ñun ñoo gagné gagné bu metti sax Kédougou et ça c' est important bokk na ci département ñu gagné gagné bu rëy bu metti donc. Euh, pour wax la nit ñi ci des bon oh, suñu mbokk yu baax la ñu si ci champ politique bi mais politicien base baax na comme ni nga waxee Guirassy nga ni Kédougou Malick Gakou nga ni Guédiawaye mais ñu bari boo leen tuddee ban dëkk ngay wax c'est ça la vérité amul benn dëkk bu ñëw ñooñu buñ ñu àndee aussi groupe ñu jox leen fi tey sëñ Maodo euh, yéen da ngeen a désigné woon journaliste bu ànd ak candidat bu ne xam naa ni seen groupe bu doon vingt sept ngeen war a wut si vingt sept agent ñu ànd ak koo xam ne zéro virgule zéro cinq pour cent sax moom wóor na yow du ko am mais loolu est ce que jaadu na ñu dépensé élection yi neuf la peut être que doon na jar quatorze ba quinze milliards ñu dépensé ko kenn du am zéro virgule pour cent mais loolu amul benn démocratie ba amee noonu consolider démocratie mooy li primaire yi gars yi def ci réew yu nekk Sénégal comme amuñu woon primaire lii moo nekk nekkoon filtre boo xam ni dañ ko def te loolu baax na parce que boo xoolee coalition yëpp dañu coalition yu mag la ñu woon ay tenoor politique ñoo dajaloo loolu day tax ñun ñoo ko bëggoon président Sall moo ko bëggoon mu am ay interlocuteur am lisibilité temps d'antenne télé yi sax dafay yokk pour candidat yi pour ñu mën a wax programme ngeen ni ñun lii lañ bëgg def ñun lii bëgg a def Sénégalais yi tànn en toute conscience parce que ñaar fukki nit ak juróom ñaar man mi ak yow ak keneen da nga ciy tànn ñetti ñeent mais dootoo xool sax ñi ci des ñu xool ñu ne mën a déglu programme yi pour mën a tànn. d' jamono yi la ñu génn avant élection yi Macky ci France 24 bu fekkee dégg nañ galaan waxam li mu wax en français bi ko suñu confrère yooyu lay laajee ci mbiru Khalifa Sall daal dafa dafa mel ne comme dañ ne su ma gagné ubbi naa samay buntu moo mën naa jéegale en fait en réalité daanaka sax daan naa mën naa ko bàyyi daanaka loolu la wax. déedéet waaw waay waay waay sëriñ. ay ay doomi léegi nag li ñuy ruumandaat mooy na bàyyi xalifa Sall nangam gañe na waa léegi est-ce que moom bu bàyyee Khalifa tey du dëgg kon Macky Sall du dëggal li ñu ko doon jiiñ na dafa ragaloon xalifa mu kii mu. d'abord mu Macky Sall mënut a bàyyi kenn parce que loolu. du waaye bu ko ko gracier mën na mu wax parce que. procédure kenn mënu ko gracier mooy waxi la. procédure le fi ñu toll nii maag yow ñuy wax procédure am jeexagul lu nekk ci justice nag ci république dafa baax bu ci kenn commenté. moo tax bu ko neex amnistie ko procédure jeexagul. ah bon ah oui procédure féete bor. Ah, ba loolu la ma xam laa wax lu nekk ci justice. am rabat d'arrêt am appel ñu nekk ci kooku moom kenn mënu cee wax. mais am na rejeté nañu yooyu yëpp. déedéet déedéet loolu il faut mu jeex. su jeexee nag prérogative may na président 4 avril tabaski korité bis bu ne mais 31 décembre bi presque 600 personnes la ñu la ñu yoo xam ne nii dañ leen a de prison. voilà mais affaire Khalifa Sall. de toute façon moom mënu ci wax parce que dafa nekk su encore en cours d'instruction. d'accord Karim. Karim aussi c'est pareil. président non Karim il a été exilé selon. président wàllam jeex na léegi amnistie moo des amnistie parlement moo koy def donc loolu aussi comme du ma député. Mhm. mënuma cee sori. opposition bi am na ñenn ci ñoom ah du ñëpp wala sax xëy na peut ñoom ñoo ñoo ko déggoon ba wax ko nan nga gise un gouvernement parallèle loolu day moom. loolu moom sëñ moo déedéet dañ fi noonu élection du am élection am ñu ni euh, daa campagne du am campagne du am campagne Macky Sall du la ñu waxoon Sall moom def na nous sommes en politique parfois dañuy waxtaan rek xam nous sommes foofu laa jëm foofu laa jëm xam nga nag li ko yàq mooy lu neex waaye wax waaw xam nga lu neex waaye wax waaye maa ngi yow wax fii tey ak suba gannaaw suba mhm. xam nga campagne amoon na mhm. président campagne na xam nga élection amoon na macha xam nga euh, bulletin yi ak yëpp jàll na yoon procès verbaux yi jàll na cour d' appel conseil constitutionnel prestation serment gouvernement parallèle doo ko gis Sénégal parce que réew muñ téye la réew mu tegu ci yoon la réew mu mën a kii la loolu kenn amul maqaama mën ko def te je ne pense pas que mën naa nag slogan politique la loolu mën naa ko dégg waaye damay def gouvernement parallèle dans une république organisée comme suñu bos bi non loolu moom Maodo du. mënta nekk pour yow mënta c'est impossible. mënta nekk waxi politique nag moom mën nañ ko waaye. mais lan moo tax ngeen agité troisième mandat bu Macky Sall en fait en tout cas am na certains ci ñenn ñi ci Benno Bokk Yaakaar ñenn ñi ci ay Macky ki yu kenn xamul et que en ce moment là euh, waa AFP am na lu ñu dégagé Macky 2012 dégg nga leen tey selon l' actualité que ñoom dañu am seen candidat bon est ce que yaakaar nga leen yaakaaru leen après scission mënta am. affaire yi. non abord. ambition yi ambition yi garaaw na de Serigne. agité wu ñu troisième mandat. non non non mais mais mais il faut ma wax la. troisième mandat c' est très clair. xam nga président ma Sall bi ñu defee référendum bi fi indi woon coow jël li indi woon coow 2011 yëpp. wax waxet bi. déedéet li indi woon. ah waaw d' accord d' accord troisième mandat d' accord. mu yokk benn phrase boo xam ne Maodo sujet verbe complément nul ne peut exécuter plus de deux mandats consécutifs kenn kenn. ak nu mën di demee ak noo mën a faloo ak lu mën a xew ak lu mandat bi nekk dix ans mbaa huit ans mbaa cinq ans kenn mënta falu lu ëpp ñaari yoon loolu lañ bind président Macky Sall donc sénégalais yi adopté ko à 63 pour cent muy référendum te doon dama koy verrouiller ba jël caabi ji sànni ko géej kenn doon ko mën a xalaat deuxièmement sa confrère yi 31 décembre def naa sa groupe banque foon laaj ko ko mu wax leen la muy wax loolu amatul commentaire et fal gu rafet gii ñu fal ci jàmm ji mu amee transparence bi clarté bi yow nit ki prêtégul sax serment pour commencer mandat boobu nga bëgg a wax troisième mandat pour man waxu kasaw kasaw la joo xam ne jarul la wax fi mu nekk nii kay na prêter serment gars yi commencé dellu ci waar wi liggéey accélérer la cadence parce que chantier yi bëri nañu soxla yi waa réew mi bëri nañu te nit ñi politique a leen di bëgg a soof parce que mënuñu fu ñu jóge nekk ci politique leneen li ci des ay benn ambition yi waaw ambi waaye ambition dafa teel éclatement mais ils l'ont dit quand même waaw am nañ ci droit parce que démocratie mooy loolu mais dama ni c'est prématuré euh, benn bokk yaakaar man sama gis gi dañ ko war a consolider parce que munoo am uti de combat et de conquête politique boo xam ne nii am na juróom-ñaari at élection boo dem gagné dem nga présidentielle dem nga législative dem nga local dem nga référendum demaat nga législative demaat présidentielle Euh, may ma terme mu président bàcc gars yi ba ñu wukkee ah nga ne damay tas non pour lan surtout que moom fi nit ñi am na majorité assemblée waaye décembre am nañu élection locale. pouvoir local bi ci PSE dafa am solo. maire yi dañ leen a jox gox goxaan yi doole joo xam ni ak euh, responsabilité yoo xam ni dañu war a contrôler dëkk yooyu pour que li mu yéene te engagé Sénégal mun ko def ci nu mu yombee ni ko député jàppale deuxièmement bala muy jeexal mandaam à mi mandat danañu def at élection législative pour amaat majorité. bu bu dissolution bi gaa wax ci assemblée loolu man pour sama sama. wàllu wax na ko waaw am na ko wax xalaat la rek mais. Euh, mais techniquement mën nañu ko def. mais techniquement assemblée nationale bu amee deux ans président mën na ko dissoudre. loolu mooy constitution bi. waaye dissoudre pour lan euh, loolu lu muy wut moom majorité. pour gouverner assemblée bi ñu ngi koy door a installé parce que at ak lu topp la donc dese na ko lu bon bon. Euh, ñetti at ak genn wàll ak lu ko topp ci cinq ans mhm. ku amuy gor car yi mu tax man de ci sama gis-gisu bopp déedéet liggéey ak sa majorité conforté accéléré cadence bi parce que projet yi taxaw na financement yi taxaw na équipe yi taxaw nañu mu gaaw Sénégal yi gis seen bopp ci li mu bëgg ba bu demaatee législative soxlawaat majorité pour mën a terminer mandat mu am Euh, majorité bopp mais. effectivement pour yow ambition gars yi c'est prématuré même bu prématuré amuloo ci lecture politique comme quoi dissension ay dissension mën nañoo am ay gars yi fàq jëm nii. non dissension dina am sax. gis nga ah saxaar guy daw. Ah gaar bu mu jaar day am ñu wàcc am ñu yëg mais bennoo 2012 ak bennoo léegi c'est incomparable. am na ñu newoon bennoo ñoo xam ne ñu ngi ci opposition am na ñu woon opposition ñu ngi bennoo loolu c'est le jeu yu bëri fi mu ne nii bu defee Euh, def commencé séddale yenn cër yi mais di nga gis ñu mer génn loolu du nga ko ah, waaye moom it dina am am ñoo xam dañ ko ni président dañ juumoon gis nañ ñu li nga def baax na ñun bëgg nañ ñëw jàppale la pour nga réussir sa mandat comme Sénégalais yi fal nañ la ba pare te élection jeex na te ñu reconnaître victoire ñu jàppale la pour liggéey réew parce que nag bu làmb ji sàjjee ba ñu bëree ba arbitre bi sifflé nit ñi mën nañu àndaat nekk ay mbokk Serigne noo gisee noo gisee bon parce que loolu benn fa ma benn am ci Sénégal gii Touba Rosso Sénégal fële nord du pays Petersen tey feneen di takkat loolu loolu est-ce que protection civile bi ngeen bi ngeen fal nii du ngeen leen wax ñu def seen liggéey parce que dafa am ay autorités yu nu fal ñuy gérer la protection civile ñooñu ils ont un rôle d'alerte di di di di sensibiliser di alerte dañuy bàyyi ba lakk am rek ñu jékki-jékki daal ne waaye ay branchement anarchique fële courant bi fii bouche d'incendie ñoom seen liggéey lu mu fi. waaw ah, sëñ Maodo loolu moom. vraiment euh, protection civile nga wax man j'allais dire prévention d'abord parce que ça c'est problème mu sénégalais la. absolument sëñ Maodo marché yi boo fa duggee léeg-léeg. yow sax da ngay tiit. te loolu euh, dañu war a gën a mhm. taggat euh, informer mhm. commercant yi ak usagers yi. am na marché yoo xam ni boo fa duggee da ngay yàkkamti génn parce que euh, na na ñu toogee ak na ñu tàncaloo ak ay fil ngay jéggi mu taw taag yépp a ci yem foo jaar ngay kii bon loolu nag c'est un problème sénégalais c'est vrai que mairie yi war nañ gën lu ci construire ay infrastructures yu gën dëgër ba pare exiger ci nit ñi ñu nekk dans des normes de sécurité yu ñuy liggéey mais aussi citoyen ak kii war nañ am responsabilité mu munoo nekk ci marché ni du ma am compteur Senelec moom doo fay am na compteur sama mbokk rek wala sama kii la damay branché fil xëcc kane du xëcc ci man kane xëcc ci man loolu boo seetloo aussi incendie yi ci ëpp c'est des raisons électriques moo koy indi ay court-circuit et donc loolu c'est de la prévention c'est aussi de de de, euh, c'est aussi euh, effectivement parfois des sanctions c'est-à-dire le courage politique de venir voir loo xam ne nii gis nañ ne lii musiba la mais nga jël courage politique ni marché bi dama koy démanteler mu indi coow indi kii mais euh, loolu yëpp nag day ànd ak waxtaan nga recaser nit ñi wutal leen fenn te boo gisee gouvernement bi daaw bari na ay recasement léegi boo gisee ñu ngi tabax ay marché fu bëri waaye loolu euh, du wàllu rek gouvernement du wàllu protection civile rek euh, protection civile moom Euh, c'est vrai que soxla nañ ko bu musiba amee mu taxaw ce que d'ailleurs du reste il faut balaa balaa musiba am sax balaa musiba am mooy li ma wax c'est la prévention c'est l'éducation mais doo leen c'est la formation citoyenne pourtant ñi ngi communiquer même marché yi man maire la marché yi dañu am comité nit ñi dañuy waxtaan mais sëñ Maodo yow yow nga yor sa taabal ma yor sa taab bu ma la tuddee nga daggal ma nit ñi leen neex la def loolu nag yéen dañuy xaar ci yéen sax yéen les hommes de média ak ñu mel yow nga xam ne da ngeen nekk ci diine ji jox ay kii mais ñu gën a expliquer nit ñi parce que yenn condition sécurité yi bu ko nit xamee xam ne musiba la nga exposer sa bopp exposer sa alal nga xam ne ci ngay sutura ak sa njaboot exposer say dëkkandoo mais loolu xaru la xaru la te loolu aussi l'islam déglewu ko donc c'est un combat global c'est vrai que état war a jël initiative dajalee nit ñi organiser leen waxtaan ak ñoom mais il faut que ku nekk jàpp ci pour mu dem parce que c'est un état de sous-développement et un état mental boo xam ni la formation citoyenne dëgërul lool qui fait que affaire yooyu di am est-ce que PSE bi la Macky Sall di continuer wala après avril bi day continuer beneen nouveau programme parce que ci campagne bi bari na ay promesses yu mu def lu bëree bari lu mel ne dakaar ba Dakar ko euh, refeeraat euh, voie ferroviaire bi wax na ko loolu moom xam naa ne ça sera un grand problème xam nga nu mu koy régler parce que loolu yaakaar nga ne promesses yooyu yëpp est-ce que dana ko def bon yàlla na nga xam. de toutes les façons wax na ko. mais da ci yoo xam ne dañu faramineux yu ay ay projets yoo xam ni est-ce que euh, euphorie. campagne bi yóbbu ko woon rek mu wax ko parce que problème mu train bi mu wax ni Thiès c' est pas la première fois mu wax ko bien avant bien avant la campagne je vous donne des informations ah. avant la campagne son premier ministre Boun Abdallah Dionne a été à Thiès pratiquement la lam fa wax ak li Macky la wax benn sax Macky Sall et tout moom déjà il est courant de tout mu demaat di leen promettre est-ce que loolu non Macky xam nga mais loolu la def xam nga d'abord ku la may ndékki jox la añ bu doon ne reer a ngi ñëw nga gëm waa Thiès moom mhm. ku leen ni saxaar mën naa ak si waat Thiès duñ ko weddi xam nga lu tax affaire bi compliqué compliqué na de waaye saxaar gi mu jële fii yóbbu ba di war a dem ba jam ñaaco xam nga jam ñaaco yow jël nga autoroute bi jam ñaaco Thiès man su ma oto parce que may dem biir léegi man damay dafa gàtt léegi loolu dafa gàtt léegi ah cinq cinq kilomètres dix kilomètres quinze kilomètres donc day jóge jam ñaajo rek àgg Thiès xam nga jam ñaajo moom bouclé nañ ko ba pare jam ñaajo AIBD laa wax mhm. AIBD xam nga loolu si bouclé kooku moom dinañ waaw waaw boobu moom boobu fi eh, boo fa àggee AIBD dem Thiès moom euh, moo gën a jóge fii ak Tëngéej xam nga loolu yomb na mu war a àgg Mbuur dana ko def semaine de fer bi nga xam ni moom moo jëm Bamako mhm. mais c'est normal yow suñu fer Falémé bi capacité douze millions de tonnes fer de classe mondial nga xam ni kooku bu ñëwee c'est plus de cent mille emplois direct koom-koom boo xam ne nii kenn xamul fu mu jëm mais le port minéralier de Bargny bokk na ci li sax ñu tabax ko il faut nga def chemin de fer à grand écartement financement 750 millions de dollars la loolu kooku signé nañ ko ba pare ak chinois yi pour def raay bi pour mu dem pour que marbre Sénégal oriental ak fer ba fa ne ñu mën ko teg ci bateau muy ñëw ñu koy ñu koy traité ba pare di koy exporté donc loolu aussi projet économique intégré la kenn ku ne xam na ni mun naa nekk Euh, leneen li waaw sëñ Maodo Ila Touba rëyul kooku ba mu koy wax même ñi ànd ci ñun ñu bari na ah lii de waaye bu ko defee dana kii feeñu tegul xeer pour Mbour Fatick Kaolack bëkk démb ubbil autoroute bi mu dem fi ne nii yow booy dem Mbour boo départ fi ba jël péage bi 45 minutes boo dee nelaw sax di daw 60 à l'heure di nga àgg Mbour mais Touba noonu mais loolu président Macky Sall def na ko projet yooyu gën a rëy foofu tey jii nii defal na pont Gambie bi. mais ñu ngi bëgg a teg xeeru kooku moom defaru ñu ngi bëgg a ah si si. waay ca yàggale ma rek la teg bi pont sax ci territoire Sénégal. Sénégal. waaye pont bi dafa def Sénégal dafa rendre Sénégal mu nekk un pays uni et indivisible. loolu dafa am solo xam nga lu muy bëgg a teg ni lu ñuy bëgg a tàmbali. pont rose bi Mauritanie nga xam ne boo jógee fii jëm France ak oto sax doo taxaw loolu la ñuy bëgg a def nii kon kooku VDN 3 bi kay gis nga ko mu nga ba Touba Tivaouane Peulh daa war a continuer du dëgg donc après il a Touba am ay branchement dont euh, branchement bi jógee euh, nañ ko waxee ci xombol euh, jëm jëm jëm Tivaouane donc moom programme bi leer na. pour yow pour yow quelque lépp yow jàpp nga ne mën na ko dana ko def. non xam nga lu tax ma gëm ni mën na ko. oui def na projet yu gën a loolu ba pare. ensuite dañoo ànd France yéen ñëpp ngeen gis ko bailleurs yi. mu ñëw di laaj xaalis di wut as tuut ñu jox ko ñetti yoon lu ëpp la mu bëggoon. waaw ñoo ko faire rek. waaw waaw mais bien sûr. ah waaw ah, c'est le Sénégalais lambda qui yow mii tey jii booy dem tuubaa doo jël yoonu xambal péage bi ngay jël. xalaatuma ko ah voilà ah, mais mais loolu ngay fay nag moom mooy mooy fay gi mooy mooy fay gi di donc xam nga xam nga nit ñi sëñ Maodo sëñ Maodo am nga. man ah déedéet bu la neexee nga jaar yoonu xombal jaar kii aussi de man daal bu ma liggéey ba midi su ma neexee ma julli ji Touba une heure Touba waaw su ma paree trois heures mu dellu sama bureau toog man mën naa def loolu tey yow man nga ko keneen mën na ko waaye nag loolu jaral na ma fay trois mille quatre mille francs euh, autour dem dikk donc loolu nag mooy fay bor bii du yow yaa koy fay du man maa koy fay du keneen ko fay waaye loolu ku amul capacité am des systèmes innovants de financement des investissements doo ko mën a def comme bateau yi dem Casamance dañ ko leb waaye ku koy fay paas yi ñu paas koy fay di sëñ Maodo donc loolu moo àddina noonu lay doxee léegi te ñu lekk dañoo leb investir leb def ay centrale électrique ngay am courant sa bien-être yokk ngay am courant nekk tailleur ngay am courant am salon de coiffure ngay am courant am machine wal di liggéey di fay sa facture loolu mooy fay loolu donc li bon mooy leb rek euh, def ko ni sama mbokk mi wadd wadd mi bis bu ne ñu toggal ay ganaar nga reere ëllëg nga defar monsieur waaye naa leb jënd rajo mbaa télévision di def publicité amortir sama investissement kooku président na réew ko wax sëriñ bu wax maire yi bu pire c'est vrai que yow maire yi xam nga ne maire yu bare bari commune yu bare amuñu doole ah bon li nga ci wax sax xëy na sax yow te bokk nga ci ñi tane ndax jege nga pouvoir bi mais ñoom toog nañ fii ne subvention yi gisatuñ ko hmm. Barthélemy Dias toog na fii nee na dañ koo xoj Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall bu Medina toog na fii nee na gars dañ koo xoj yéen mën ngeen daal commune bu ànd ak yéen baax yenn communes yi nga xam ne dañoo xaw a nekk ci opposition beeg yooyu ngeen te leen fii mais Macky Sall bàyyi leen ko mbaay yi moom c'est le chef de c'est le président de tous les Sénégalais. loolu moom demewul noonu. waaye noonu la demee dañuy waxtaan rek. non yi ko man am naa ci sama département. commune bu mel ni Koul ñu ngi may dégg maire bi suñu xarit la PDS la laaj ko ne ko ndax li mu am ci électrification ba Koul amee ba tey commune ba mos na faa amam de mbaa li mu am ci. fan nga Koul. waaw non sous-traitant yaa fa jaar de du état bi gars yi fa jaar. sous-traitant yi. non ga non waay yow xanaa waxoo commune Poul bi nekk Bor. waaw ku fa def. gars yaa ngi xuloo courant bi temps yi ñëwul wax naa ko ci sama journal. dama ni courant bi coupé. non gars yi nag fay ñu leen xam benn waaye. non non non wax ci diggante comme intermédiaire la xaw ma lan. je t'assure non non ça dépend ci dëkk yi. ah en tout cas am na ay. dafa am fu Senelec nekk dafa am fu Azer dem dafa am foo xam ne ay concessionnaire ñoo fa nekk poule de concessionnaire dañ leen di jox ñu kii ñu ñu def man am naa fay dëkk samay mbokk rek fa ne guy sagal ñu ngi sama Fass jak saaw sama ñun ñëpp am nañ courant donc mais mais pas pas am nañ courant nu ñu amee courant mooy problème non non ñu sax ay réseau Senelec lañ bokk mais am na ñoo xam ci concession lañ nekk yoruma liste bi fii pour mun la waaw dama lay wax rek mhm. boo demee Tambacounda Tambacounda am naa fay xarit yu bëri juróom-ñaari mairie yoo xam ne pratiquement ay ñooñu dañu ñoo ma woo man ni ma ñun dañuy jàppale président ñun kat dañoo nekk opposition ñu xëy PUDC ñëw ah ñu ñuy woo sous préfecture ñu dem dañ lay ñëw ndox dañ leen defal courant dañ leen defali piste. mais ñooy defal ñun nag looloo ñu ñor. pour que euh, ndax suñu population tax ñu xeex pour ñu mun ñu falaat gisoo score bi ñu def département Tamba mais bilan ba moo fa àgg et cetera et cetera maintenant de manière globale mairie yi am nañu problème. parce que problème. loolu laa bëggoon na nga wax ko nag. Ah, non non non mais loolu dëgg la. amuñu moyen amuñu moyen. xam nga lu tax ah a def processus bees communalisation intégrale waaye communalisation intégrale xam nga bu njëkk dañ daan ñeenti commune fi am ñii ay sénégalais pur français la ñii ay indigènes lañu mais daanaka loolu moo doon continuer am na rek ay commune yu bari quelques centaines waaye li ëppoon Sénégal communauté rurale daanaka malaa nga woon rek indigène nga woon parce que li yi ñuy fonds de dotation euh, yi ñu jox. ak fonds d'investissement euh, d'équipement des collectivités pour mais pourcentage bi nga daan am sax comme communauté rural bu dee ab kaw koo nga ak bu dee da nga nekk jàpp ne citadin nga mais bokkul woon président Macky Sall dafa indi équité maanaam nit ñëpp commune la ñu léegi bu dee cent milliards dañuy séddale dañuy jël population Sénégal séddale ko jël commune bu nekk nu sa nit toll ñu jox la loolu te ku la ni fonds yi ñëwul day wax li ko neex euh, at mu jot benn yoon la ñuy joxe fonds yi léeg-léeg nag mu teel a ñëw léeg-léeg mu tardé comme comme ren par exemple 2018 effectivement fonds yi xaw na yéex a ñëw parce que man samay fonds maa ngi ko jot ay octobre ak yooyu te loolu problème la effectivement soo buggee teel a commencé sa liggéey nga xaar ba fonds yi ñëw jamono jooju mais ren am nañ yaakaar te am nañ ci promesse ni dina gën a teel mais habituellement nag daawuñu ko jot benn yoon. avant fin premier trimestre parce que xam nga état bu at mi jeexee day démarrer am nañ budget mais mise en place yi toog pour mu génn xaalis joxe mais loolu bu ñu koy joxee du ñu seet euh, communiquer communiquer maintenant nit mën na am moom maire ay difficulté ci relation ak administration xam nga loolu aussi am na ñu nekk opposition gouverneur bu ñu fa gisa bunt nga ubbil leen am na ñu opposition préfet bu nekk ubbil sa bopp mais am na ñoo xam ne peut-être seen relation moo moo moo nooyul daal moo nooyul mais de façon globale bëgg nañu ñu gën a jàppale communes yi te loolu aussi am nañ ci ay programme notamment code minier bu bees bi nga xam ni 0,27 pour c'est nébuleux ah c'est pas clair du tout en parlant de code minier ak pétrole bi moom a dikkaat léegi selon Sonko ak ñeneen ci opposition bi ni ko Macky Sall defee daal ak gars yi daal waaw xam nga xaatim bi daal moom kenn xamul waaw xaatim bi d'abord man da affaire bi jaaxal na loolu bëggatuma wax ci pétrole sëñ coox ba sonn mais ah bon man sëñ Maodo ah dama lay defal benn affaire contra pétrolier yi fi nekk nii. Mhm. muy gaz bi ñu gis Ndar. Mhm. ak pétrole bi ñu gis fii Sangomar. Mhm. président Macky Sall signé wu ci benn yëpp président Abdoulaye Wade ko signé donc nekk fi naan ci nébul ak yooyu wax caaxaan la. Macky signé wul dara. signé ci benn li ma lay wax nag boo ko weddee nga dugg ITIE point SN. affaire Mauritanie beeg li ci. non man dama ni non affaire Mauritanie contrat bi dafa am ba pare ñu découvrir ko mu war a signé accord ak Mauritanie loolu moom. ku xam àddina ni muy doxee waaw sëñ Maodo pétrole gaz feeñ na ci frontière bi dinaa la yónnee carte bi nga xool ko dafa mel ni suñu borom dafa garaaw de xam nga ci frontière bi la feeñ mais gis nga tomb bi ni mu ci mel nii mel ni bu doon ub déeg dafa mel ni ci digg bi la nekk sax mhm. ñu ni nañ ko bokk cinquante pour cent cinquante pour cent ñu tàmbali ko exploité suñ te loolu ma nga 1600 mètres ci suuf suuf géej da ngay dem ba géej dàpp suuf si dem ba 1600 mètres yow da faa dem ba xam li ëpp Mauritanie la fi tam li ëpp Sénégal la fi loo bëgg ñu bàyyi ko fi ni d'accord ñu kenn du ko exploité wala ñu jël ay jaas yi commencé guerre ku gagné sa moroom jël ko déedéet président Aziz président Macky Sall ni ñun benn peuple la ñu ñoo bokk yàlla indi na xéewal te ni ko yeneen réew yi defee boo demee Norvège boo demee Angleterre boo demee même dans dans dans beaucoup de pays Euh, li ñuy wax euh, accord commun de coopération bari na ci pétrole ñu ni nañ dem bokk ko séddoo ko fifty fifty juróomi at yu ne ñu toog xool production bi xool parce que bu ñu demee ba pour commencer produit dinañ xam fan la gën a bare bu gënee bari fii jàng fee mbaa jeng fee ñu xool ban pourcentage la ñu renégocier waat ainsi de suite jàmm ni ñooy ñu ànd nekk ay mbokk dëkkandoo moo gën ñu koy xëccoo tëj ko kenn du ci jariñu wala ñuy xeex kon yow kon yow site bi ci ci frontière bi rek entre les deux pays. entre mais nekkul ci pays Sénégal. déedéet dafa gaz bi. gaz bi rek la. gaz bi rek moo nekk foofu. moo nekk ci kaw waaye pétrole bi fii la nekk am na beneen gaz bu nekk Kayar sax boo xam ne Sénégal rek la bokkul ak loolu. Mhm. donc loolu euh, accords yi li ci des. Mhm. li ma la waxoon rek contrat yi daal. mi ngi ci internet xam nga kuy def njaaxum di ko nëbb doo jël contrat yi def ko ci internet dama bëgg gars yooyu wax yëpp nga invité leen ni leen dama bëgg. mais Serigne est-ce que li nga wax ni gars yi ko ñoo nekk di sànni. dama ñoom fi nekk di sànni xeer dama ne ku la fi waxati ne ko damaa bëgg nga dem internet indi contrat yi nga liir ko ñëw nga ma interroger nga wax ma fu ñu fu ñu les Sénégal. xam nga loolu yomb na mooy li ma la wax rek c'est comme les bureaux de vote là ay daan na fi daan fii buñ ne ay xale day voté te xam nga ni Maodo Faye bu xale voté woon 30 secondes après correspondant rajo yëpp nañ fa ne correspondant télé yëpp nañ fa ne dinañ jàpp nit ñi nañ wax yenn bureau la ak ban dëkk la ak ban tund la xam nga. d' accord mooy pétrole bi loolu la. d' accord na mais. d' accord pratiquement ñu ngi ci à une minute de la fin léegi dama lay joxaat kaddu gi nga wax lan ngay nuyoo askanu Sénégal lan ngay tëjee ñu doog waaw gërëm askanu Sénégal yëpp félicité leen am mbégte lool am fierté d' être euh, parce que euh, yi. Euh, ñun ñuy liggéey ñu bëri bitim réew euh, dañu dañu dañu fier parce que dañuy woo fu ne di ñu féliciter surtout Afrique ak àddina bi di wax yéen model ngeen encore une fois ci lu nekk te loolu Sénégalais yi ñooñ ko may mais aussi suñu administration territoriale parce que dañ ko attaqué pilonné ko ñu di ay fonctionnaires ay patriotes yoo xam ne dañuy liggéey faruñu ak ma Samba faruñu ma demb ak ministre seen évidemment seen ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nga xam ni avec euh, à travers le, le le soutien du du gouvernement et de son chef yóbbu nañu matériel yëpp amul benn bureau de vote bu dara manqué processus jaar yoon évidemment tout ceux qui ont proclamé les résultats dans la dignité mais aussi dans la rigueur mu di euh, suñu suñu justice di féliciter aussi les coalitions de de de partis les cinq qui ont contribué à animer ce pays dans la joie dans l'allégresse dans l'adversité certes mais dans le respect euh, de l'un euh, par rapport à l'autre te loolu euh, ndam la lu rëy sagu réew mi la et que noonu la war a demee maintenant élection yi jeex na président président wu ñëpp la war a doon te moom la doon tàllal na loxo ñëpp ñooñu aussi dañ leen di ñaan ñu def seen opposition ñu ko war a def euh, dans les règles de la de de de construction c'est-à-dire que critiquer taxaw fa war a taxaw lu baaxul su amul nga wax te joxe Euh, ay contribution yoo xam ne mun na changer réew mi ba mun na changer loolu wala ñu mun nañ ko intégrer ci politique yi def mais bu ñu demee ba élection jotaat ñu defaat noonu euh, demeet compétition comme Balla Gaye ak Modou rek ku gagné ñu reconnaître la et je regrette effectivement que euh, ci continuité boobu l'ensemble des autres candidats jëluñu seen téléphone woo président de parce que ñi ñu bokkal sax coalition ñoom parce que xam nga ñun ñëpp benn man am naa xarit ci coalition bu ne ñoom aussi am nañu xarit ci ñun ñun dañuy félicité ci suñu biir waaye bu plateau ñëwee ku nekk da ngay nekk sa position par loolu loolu la donc di gërëm Sénégalais yëpp di la gërëm euh, ci opportunité bi nga ñu jox euh, di sant suñu borom ci li nga xam ne yàlla def na te vraiment président li mu nam ak li mu sumb PS2 bi yal na ci yàlla def barke parce que su ko defee deux mille vingt quatre su mandaam jeexee Sénégal dina toll beneen niveau. jërëjëf euh, Serigne Bob ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon incha allah beneen dimanche daañu di kat ci beneen gan fii ci jano bi ci su FM seen rajo 98 point 5 wasalaam.